maa ngi wax ne dafa am ku ma daboon ca Ndakaaru sëy na ñu teew mu ne sëriñ Cheikh day leen wax actualité ma ko luy actualité mu ne ma xew ci jamono ma ne teg dal di ree ne ko man sama actualité kenn la mooy yàlla te nag looluy dëgg jataay bu ñu toog bu fa yàlla fatul rek manqué da damay faral di wax ni léeg-léeg ñu daja boo xam ne dañ koy tudd yàlla waaye yàlla xamul ca un pour cent loola nag ku yàlla ñor doo sawar ca jataay may ñaan li nu fi indi mooy ñaan li nu fi mooy jaamu yàlla li ñu fi indi mooy ku ñu nekkaloon mu seeyoon ci yàlla ba dem kon ñun bu ñu toogee war nañu xam bis bi lan lay sax loolu moo tax day ñaan ko fi ne bu la bis bi tëlee na nga teewul te yàlla rek xam nga ci yàlla yónni woon ci ñun muy Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam aay juddoo wala bala bala bala muy wax aay seede nañu ne lu mu wax dëgg bala muy wax dafa ne ñëpp seede nañu ne limaam lu mu wax dëgg ba mu ne aay juddoo nag Jibril di la rawat kon moom lu mu wax rek gëm ndax daf ko wax loo xam ne teg nañ ci suñu bët ñun te ku gëm bàyyi lay te seey ci sa ngëm xam nga lii limaamu naxul kon nag lu mu wax dañ ci war a bàyyi xel dañu toll ci jamono bu nëx mu ni ngi ñëw dina yëngu waaye bu ngeen ci àggee soo ma doolee nag waa àdduna boobu ay ba mu seen moom lu jar a dëkkal ci jëlee bu baax soo ndóolee nag waa adduna bàyyi ba mu àgg ci seen bopp parce que xamoon na ni fii mooy capital bi fii la coow yi ëpp waaye yéen sama njaboot bu ngeen ci àggee nii la bëgg ngeen doxee le résumé loola mooy bu ngeen mënul wax aw yiw noppi ni bu ngeen di jóg ne yiw tax ngeen di def bu yiw amul toog leen fi yàlla yoon moom moo ma lay baax moo tax mag ñi jubu ñu mu ne yónni nga ba pare nag digal ñu xam nga fii loo am say ñëwee rek amatul ngan ca la lu bàyyi koo ci yàq wa in janaxu li sal faj naxu la la yàlla faj naxu la ba pare nag wa tawakkal ala mu ne bu ñu leen woowee ci jàmm na ngeen soo wuyu dee ci jàmm nag na yàlla tax ndax bu boobaa da ngay wiiru ci yàq ku la wari yow yaa nga yaa nga ca la nga wax moo tax gars yi am solo rawatina nag jamono bii ñuy dund ñëpp xam ni mu jaxe ñëpp xam li xew mu doon yëngu-yëngu yoo xam ne tiital na ku ne am sax ñoo xam ne seen xel ma nga ca suñu réew du tàkk ña ngay rafet waaw la yàlla nag lu ngeen njort ci man ñun li ñuy njort ci yàlla ci yàlla mooy rek lu baax waaye li wér teewul mooy yàlla dafa digle ñu fànn kon bu ñu demee ni dëkk bi demee ni réew mi demee fu ne di yëngu fu ne yëngu ci wax ak jëf bu loolu amee nag ñenn ñi àggale déedéet ak lu mën a xew dëkk bi du tàkk ndax la ñu ni ndax mag ñu fi tëdd d'accord mag ñu fi tëdd su fekkee ni condition bi mooy jikko ya mag ñu yow su fekkee ni mu ngeen ñun mën na noo dalal suñu xel nii réew mi du tàkk waaye ndax jikko yooyu mun nga laaj sa bopp nag am na ay réew yu tàkk yoo xam ne ay yonent lañ ko fóot kon naka lañuy ñuy layale loolu naka lañ koy layal gaa yu baax yi ala kulli xaalin suñu bëggee dund bu neex ndax problème mu nit ñi di leen yëngal fi ñu toll ñaara ñu ñu mooy xiif ak ñàkk sécurité mu yëngal nag adduna bi ndax xëj na yow yow mi rek bàyyi woo ci xiif waaye ñi xiif ñu ëpp ñi rek mu doon mat lu matale ma ñun ñi toog fii ak ñi ñu dëkk ci wàllu social amaan na sax duñ ko yëg waaye soo génnee maa ngi wàcc màggu yàlla xiif gi tar na tar boo xam ne kenn mënu ko expliquer maa la ko wax ay nit yoo xam ni bu ñu ndékkee du ñu añ du ñu reer ay nit ñoo xam ni bu ñu feebaree amuñu lu ñu faj ay nit ñoo xamante ni wax ni lu ñu sol amuñu ko lu ñu fayee ngir seeni doom amuñu ko kon xiif bi ak ñàkk bi lu yaatu waaye nag bu ñu ko tegee ñàkk sécurité day gën a métti te ñàkk sécurité boobu defe naa ni umpul kenn kon suñu bëgg yi stabilité am ñu dund dund bu neex la yàlla ne fal yaabudu rabba hada al bayt lan la ca teg alladi abaamahum min juuin wa amanahum min xaw muy solution am na bu ñu jaamoo yàlla rek yàlla def kon nanu jox yàlla li mu moom libaas gis nga ak dund benn réalité rek moo fi am benn réalité moo fi am réalité boobu mooy yàlla te yàlla mooy dig te ba fa ma za ba'dal haqq illa dalal ginnaaw yàlla dara newu kon ñu jox yàlla li mu moom sëy naa yëngute jamono wax naa ko ci bëlit li baax dafa mel ni dafa am ay force ay force yu nit ñi daw wuti ay force ci li yëngal jamono yu nit ñi daw wuti force yooyu bokk na ci alal ngeen seetloo nu waaye amee baax sacrifier sa njaboot ngir alal yàq ak mbokk ndax alal jël loo moomul ndax alal kenn mënu wax waaye wolof ne ni junj doy waaye ñun ñëpp xam nañu ne alal mu tas dëkk bi coow li ñu dégg yëpp alal kes ah maam day waxoon na faggu leen lu lekk ndax ëllëg sama borom i ñu koy audité waaye baax na am am ak teraanga bokkul am am ak teraanga bokkul teraanga gën am am njëkk a waaye teraanga nag soxla boo am mu fay kooku mooy man foofu la ñu bàyyi lay teg bàyyi lay dafa ni dinaa leen teg bagaan ngaa xam ne dén lekk ba suuta bu ngeen daj tàpp bàyyi lay naxu kon foofu ñu dellu ginnaaw lii ñu jëm muy alal di ko xëccoo waxuñ ni dafa xaraam waaye outil bi mooy yàq lu baree bare topp yi force boobu nañ ci bàyyi xel nit ñëpp màmm nañu dem ba sax koo jàngatee suratu takkaasu da ngay mu ne alhaakumu takkaasu hatta zurtumul maqaab ëppalante bi dafa dem ba ca armée ëppalante bi jaral na nit sacrifier nit dem ci sëriñ maaman ñu defal ko mu ne ko demal ca armée yi ca bopp néew nga suur ko fa ngir mën a ala wala am li ngay léegi wala am liggéey ci àll moo tax ni alhaakumut takaasur ñu ngi ëppalante xataa zurtumul maqaabir gaa yi jaru ko de ren beneen force bi mooy xam-xam nit ñaa ngi daw wuti xam-xam baax na waaye lañu bas ña nga waxoon ne xam-xam lu muy lu muy jariñ lu dul nga xam ko jëfe ko digal ko saw xam-xam bu la mënul yóbbu ci yàlla ni xaajatul ilmi ak tawhid xam-xam dëgg dëgg dëgg dëgg bu wéetal yàlla amul amoo xam ndax xam-xam boo xam ne du la wan yàlla xam-xam mën na laa jëriñ ci àdduna waaye dalee loo allah gaa yu baax yi xam-xamam loo nañu ko ut dafa am solo waaye bul ci loo bul ci loo na nga fekkee ba am ci yàlla imaam beneen force bi mooy dara nit ñaa ngi xëccoo ci place yi dafay feeñ ci ku ko am ta xam doo ko yem bari alal na leen yàq na lu baree baree baree bare na yàlla dala tëgg la nga war ci sant yàlla waaye santoo ka ci dañ ci écraser nit di doyadal nit ñi di suufeel nit kon daraja bu la yóbbuwul ci jaamu yàlla ak nga xam yàlla ak modeste musiba am sëy naa kan moo ëpp daraja ci nit ñi ne ma bàyyi laaj mu ëpp daraja ci mboo waaye xoolal dafa modeste moo gën a modeste ko indi modeste ma nga ca suuf kon daraja kenn ko yenn beneen force bi mooy pouvoir koo gis rek pouvoir bi bëgg bu ñu nee pouvoir xel yëpp day dem ci mais pouvoir day feeñ am pouvoir il kon nga yàlla waaye di ci not ay nit di ci toroxal ay nit yii ay force la yoo xam ni tey lëmb na réew mi lëmb na ay nit may ñaan ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel ndax la ñu biir kese bu dee xam-xam gaa yu baax yi ci ko mën nañu ma jàngal waaye yàlla dafa ma naxtu li ñu tuddee laayu biir ñu war ko seet te bàyyi lay ko santaan waaye man bi ma càmbaree ñeenti force yi ak yeneeni force dama ci gis seen aussi dama ci gis Serigne Ousseynou parce que bu dee alal yàlla dénk na am déet waaye yëngalul Chérif dama ne bu dee alal yàlla dénk na ko Chérif Ousseynou Laye waaye yëngalul Chérif Ousseynou Laye bu dee xam-xam ci zahir ak baatin yàlla dénk na ko dafa wàcc ci suuf ànd la mu xam mu bokk kan bu dee daraja la daraja bu weesu ñaari yonent ci séq yi yombul day lu wan yombul ma ne daraja gënuma rëy mooy sama baay roowu laay Mariama mooy sama baay waaye xëyru xalqilaay mooy sama maam ma ne daraja du weesu bi Chérif musukaay yam ndeysaan am na bis si keroog nag yëngu na yëngu na keroog ndax dafa am benn kilifa bu fi ñëw di ko wan boppam ko fii lañu bokk waaye keroog Chérif fëgg na dënn te waajee tey ndax nga wax loo ne boo ma xam yonent yàlla Isaa mooy sama baay te ngeen li ñu def moom mooy sama maam kon boo ñëwee di wax keroog keroog ñun ñëpp dañu waar keroog la ñu gis tey kon yàlla jox da ngay modeste moo koo ni boo nee waaye ànd ak loolu li kam fi ka rek tëdd yii nit dañu daw jënd fàtte nag bi ëpp doole pouvoir bi ëpp doole mooy yàlla yaa nga daw jëm téeli bàyyi bi nga xamante ni lu ko neex mooy am lu ko neexul du am kon gars yi nañu bàyyi xel ci loolu moo tax force yi ñu topp force yi ñu topp moo tax nit ñi di dund crise boo xamante ni xamul sax dayoo ak muus waaye foo ñu xam ni sécurité mënuñu ko am ci àdduna fekk taw bi am ndax dégg ngeen dama ni sécurité mënuñu ko am ci àdduna fekk taw bi am sécurité lu ñu yàq الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك هم لهم الأمن وهم مهتدون tooñ baaxul gars yi gars yi ku bëgg jàmm la bul tooñ damay ñaan ñu jéem a jubóog suñu bopp te pour nga jubóog sa bopp foog nga jubóog yàlla boo jubóowul ak yàlla doo jubóog sa bopp te boo jubawul ak sa papa doo jubóog nit ñi kon nag jàmm laa wax àndul ak tooñ ku nekk na sit ci boppam tooñ ndax tooñ baax tooñ nag feet mu ngi ci du mu am jàmm te njub du am ku jubul rek ay ko ayol yaxfillah masalu alladina taxadu min dunillahi awliya mu ni ka masali ankabut ittaxadat bayt wa inna awhana albuyut la baytul ankabut law kaanu ya'lamuun xam nga boo xoolee ankabut muy jardooñ xam nga néegam boobu du néeg kon ba jox ko keneen ku dul yàlla amoo sécurité amoo sécurité ndax jardooñ yàlla dafa jël misaal ci jardooñ ne koo xam ni dénk ka keneen ku dul yàlla yaa ngi mel ni jargoñ ndax nii gëm boobu mu rab xam ngeen ni amul sécurité mu ne inna awhanal buyut la baytul ankabur law kaanu yaalamun muy nit bi gën a doy xam nga léeg-léeg dañuy xiir bisu mag yi bu xewee ñuy waxtaan ci borom borom bis bi d'accord waaye lu yëngu am na lu ko koy am na lu ko yëngal nga taamu rek at ko jot ni nga wax ci si di nga dem ba dootoo am loo wax waaye yàlla du jeex yàlla du jeex te sëriñ jaamu yàlla li mu bëggoon ci ñun mooy li maamam andi woon ñu nekk moo tax bu ñu bëggee noppal nan jël suñu mbir daal dénk yàlla Gülsün yok dayanır Bu rüyaya mingar sëy naa bàyyi xel ni yàlla la bind xoolal te bi mu la bindee dala goree benn buur nga am sëy mooy yàlla kenn moomu la ku dul yàlla dina metti lool nag nga dégg ndigalal mbindeef bàyyi ndigalal yàlla sëy bu mu la dal sëy nekkal gor comme ni la yàlla bind ndax yàlla dana def nekkal dox nit ñaara ngi nii bu ko contrôlé wul rek musiba mooy làmmiñ bi ak xol bi làmmiñ dafa am gaaf xol dafa am gaaf nañ ko sàmm yi yi fi xew yëpp xol bi nag ak làmmiñ lay gis ah soo bëggee mucc sëy naan looy def na yàlla na yàlla ku jël sa mbir jox ko yàlla buur yàlla ni ko la nga jox ko keneen impossible xam nga li impossible mooy lan mooy lu yàlla dogalul ci yow kenn mënul fexe ba mu am am de lu yàlla dogalul ci yow kenn mënul fexe ba mu am kon nag li nga loftale am na ku ko mën li nga li nga tëj am na ku ko mën waaye li impossible mooy lu yàlla dogalul ci yow nga kay bopp nañ ci bàyyi xel kon li ñu war ñu war ko wax mooy lii wammatuna toroxlu na ay yàlla

yàlla day jur boo xam ne soo ko nee baax na te mu dugg ci yow rek xolal du yem rek ci baal la waaye xolal da lay baal ba pare soppi la nga defoon am yu. damay kontaan daal ñu waxtaan yàlla parce que dafa mel ni daal man jàpp naa ni soxla nañu nanu fàtte suñu bopp wax ci nu moom kan yàlla dafa wax ci àddisa xut yàlla madame Sultani Bakhia mu ni yow doomu aadama xoolal yow laa joxoon monsieur le maire amul bul ragal kenn bu nit am doole ba nga ragal pouvoir bu mu yor day dee man rek maa fi des lan fi bàyyi xaw daal ndax nguuram ñëpp dañuy jeex waaye yàlla moom nguuram du jeex in the que li nga war a am yàlla pare na kon bul sonal sa xel waaye demal liggéey waaye bul sonal sa xel loolu nag wax du yàq la fa in anta radita bima qasabtuhu lak araftu qalbaka wa badanaka wa kunta indi mahmuda gis nga li ma dogal ci yow li ma la sédde boo ko nangu boo ko nangoo ma noppal sa xel stress doo ko ko am noppal sa yaram xam nga stress bu amee yaram sonn ba stress bu amee yaram sonn mu ne damay noppal sa xel noppal sa yaram ba pare ma ne la merci boo toll ma ne la jàll bàyyi ko yam na aadam wa in lam tar بما حسبته لك فهو عزتي يا لطفي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض النحوس في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما حصلته لك وكنت عندي مذموما يا نين li nga ولا sédd bu la neexul do d'accord d'accord mais nga xoolal dinaa jël àdduna teg ka ci sa kaw ngay topp àdduna di daw xoolal ni mala yi di toppi àdduna wala topp àllaaxira àll bi di daw noonu ngay di sonn lool lool lool ba pare te li nga bëgg doo lu dul ma dogal ci yow te mu jëpp la teg seet leen ko yàlla jëpp fan la jëm أعيد قلبهن أي عين غادي فعيش أسوقه لك أيوة فلا تعمل mu ne yow doomu aadama ma bind asamaan juróom-ñaar ma bind suuf bi juróom-ñaar te kenn dimbali wu kan moo dimbali yàlla mu ne kenn nga dimbali wu ci mu ne waaye yow ndox loo dundee dina ma dina ma sonal man yàlla tontu bi mooy lan dee يا ابن آدم إنني لم أنس من من عصاني فكيف من أطاعني yàlla nee na man ku mooy fàtt du la fàtte waa ki may topp nag ki ma topp

yalla neena ki may moy man duma ko fat wa ana ki may jam nam jamu yalla ni jamu yalla ni jamu yalla way la ma tek ci baax ko daw yalla dafa ni wa ana rabbun rahim wa ala kulli shay'in qadir man ku bari ni ko ni la way ku bari doole la yalla ni ku bari ni ko ni la way ku bari doole ما دور ما دور يا ابن آدم لا تسألني رزق الغد هما لا تقول سنة سنة tey la samedi bul ma laaj loolu liggéey suba wala boo waaye lu tax nga wax li mu ne man laajuma la jaamu jaamu jaamu tey laa la laaj ndax dégg nga wax yàlla nee na bul ma laaj wërsëgu suba loo déggee ak loo añee suba bul ma ko laaj ndax laajuma la jullit suba jullit tey laa la laaj yàlla man waaye li daw yaram di naas mu teg ci yaa naadal ana laka muhib fa bi xaqi alayka kun li muhibban yàlla nee na man dama la sopp xoolal bind jaaxam ba pare nekk dama la sopp kon nag yow li la war mooy lan agaay ah, li nu war mooy lan mooy nu nu bëgg ëmbët bu sopp yàlla nanu sopp yàlla njoon iftax ay nay bu suñu bët ubbi suñu bëti xol jàkkaarloo ki nga xamante ni lépp ci loxoom la ne muy sunu borom xoolal ñun ñëpp ñu baam répété répété li ñun ci yàlla ñun ñu waxoon lu mu waxoon ah laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin man yaakaar naa ni loolu dëgg waar la fii ñu toll ci jamono fi ñu toll لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين parce que dañu sax ci tooñ te kenn xamul ka yem si moo tax mu bëgg ñun ñëpp ñu fas wax ne yàlla laa nuxibu ilaa ant ñu bëgg ni kenn ku dul yàlla xam dee li nu jàpp ni muy mbëggeel du mbëggeel de parce que mbëggeel càkk la fekk ma soo ko doo xam luy mbëggee wax naa la ni sunu jabar yi mu jaral lu ne mu jaral lu ne mani bala ngay xam ne du du moom nga bëggoon mooy takkal jabar ba lim dëneel bi jeex bu jeexee rek toolu jot ci ngay xam ni kon li nga bëgg da nga bëgg loo yëgagul moom du bëgg bu dee kër la yàkkam fi ngaa toxu bis boo toxoo ci ngay xam ni bu moom nga bëgg ki nga bëgg kan la mooy da nga bëgg rabbul izzati mais ñama bokk moo tax wala narju illa ant ñun yàlla yaakaaruñu kenn ku dul yow wala naabudu illa ant waaye duñu jaamu kenn ku dul yow léegi nag sumay té dañuy dellu rek wax lii yàlla yaa ilaahana nu ngi te dire tu leen lu ñu dee mata dee ni tax mu la

feeg Mustafa fi di njool tooñkat di wut ku kabal la ilaha illallah yàlla ko am déet bay jibin makan laaw ba ant ni feeg Mustafa mu ngi ci seen biir rek du ma يا وخوني كانوا في مصطفى في ديار رنكاتي وضوء كمال لا إله إلا الله li daw yaram nag boo ko waxee yàlla mu ni del si nan di ñaan di buuruba bu jéppi ku ñaan te du booti képp ku naan la ilaha illallah bis nag di ñaan di dagaan ku nuy ñaan buur bu baax du jéppi ku ñaan ad oni astajib lak fay ñaan leen ma may leen gadd jàmbalaay ne na bu gudd joxe bu ko sa war sax mën nga kaa for ndax leeru bay cor na yaxya nee na ne na fi ma tudd damay dégg ñii nekk jàngal yi nekk ci adduna yëpp ñu ngi tàllal loxo di ñaan ak lakk bu mu mënta doon waaye xaw ma mu ne la ma ca jàngal ndekkete ñaan yëpp ci jàmbalaay lay dajaloo ñu ñu sélectionné yi war a ak yi waru moo tax moo tax foofu laa sukkandiku mais yàlla na nga seet ci ñoom li nu يا ثقلين إلي رسول في الأجل فاقصد يا صاحبي هو الإمام الذي كان منتظرا في البر القدس ستكون عندهم فتقوا آدم تكوا أيوة ليوجهن كيد قراو waaye yàlla ko yóbbu bay duduwaa ñun waa waaw ran kan moo war a tiitaroo ni bay lay yàlla ko yóbbu question la alli question la de du ngeen ma tontu am na ku tontu fii de ma tontu leen tontu waaw ki war a ni yàlla bay yonent la mooy kii jëf ni bàyyi laay sax bàyyi li mu teg kii moo war a ku dul kii rek waroo tiito woote bee ñu weetal dëggum ngal dama ni ki war a mooy ki nekk ci li bàyyi laay santaane koo ci mu tànnal ku dul kooku waroo tiitoo bàyyi foofu la liggéey bi nu bàyyi weddikat yi ak seen wedd nu sax nag ci duñu bàyyi lay loolu daal lay ñaan ñëpp man leen ci boo ji ñu dëgg nañ ko waajale defar suñu pamata pamata na ma defal parce que bàyyi lay wuyee taxul mu ñëw kon nag boo dee rey sa bopp ci matériel yu àdduna tax xol bi defal taxul woon bàyyi lay waa gars yi koy defal anniversaire xanaa ca la mu bëgg nga koy defee bàyyi lay lan nga bëggoon ah, lu bàyyi lay bëggoon bàyyi lay li mu bëggoon mooy ñu am ngërëmal yàlla am ngërëmal lu jiitu borom la si di ma njool teg waxtu wi dafa jot boo ubbee buntu boobu dama fi yàgg te waxtu yi jot li ci am solo rek ñu wax ci bàyyi xel xam nga xéewal bu gën a rëy gën a rëy nga bokk ci lislaam xéewal du gën rëy nga gëm ñaari wàccuwaay yi dimb ak tey lii nag bu la ko yàlla defalee yàlla wàcc na kon nag ñun ñoo ci des gars yi aaj boo ngi ñëw yi ngi réseaux sociaux yi buñ ko feesale xastante ak tontonte buñ ko def nañu defar suñu bopp d'abord yor comportement bi mag ñi yor parce que man li ma yéeg li jaraloon mag ñi gàddaay bàyyi lu ñu amoon waaye li ma mooy ba nu ne jàkk bàyyi laay lu ñu amoon fàtte nañ alhamdulilah parce que bàyyi laay neex moo tax mag ñi lu ñu amoon bàyyi nañ ko fàtte nañ ko ah, la vie am déet barki Limaamu Laay parce que ñoom maa mu jubloo du ñu see bay bay da leen war na leen toj dañ war na leen toj war na leen ni may moomul waaye jox leen loo xamante ni moo gën àdduna moo gën àllaaxira waaw my life when, whatever my life when, love my life when. وخلق اسمي بيعي تغطى نفر يا يا لا لا يا تخيو يا ديما ديما que dina dina jaar li bay day bay lay daj ci wooteen bi ah ndax yéen a ngi may déglu li bay lay daj ci yooteen bi maam si daj maam Njoon daj maam Babacar daj bay si caw daj bay ran daj bay Ibou Seyni daj bay Ousseynou Lay daj bay Mouhamadou Laye Sène mu si nday saa daj ko ak doomam njaboot gi fi ne li ñu daj ma ne ndax dina jaar ndax xel dina nangu ki bay lay tuddoon ki bay lay tuddoon ne bu ñëwee ba si mu ñëwee siiw na siiwal na woote bi ndax war na géew ba géew gee te réew mu sëriñ Ablaye jërëjëf eh mag yéen lay ñu wax ba jeexal ba néew ñu bàyyi ñoom te mbir xam nga